Fàllu Mbàkke nu Xaadimu Rasuul di way juróom ak soxna Maam Awa Buso Fay sëriñ Abdou Karim Mbàkke mi ngi gane jamono ci ñeenti fan ci weeru avril ci atum 1952 ca Touba ak gane jamonoom sax daal di dëppoo ak génnu ko àdduna sëriñ Abdou Karim Mbàkke nekkoon moom itam kenn ci njabootu sëriñ Fàllu Mbàkke ginnaaw bi sëriñ Fàllu ci la daal di jël turu sëriñ Abdou Karim moom lee daal di koy jox sëriñ Abdou Karim mii moom booy juróom wa sëriñ Fallou Mbacke daan wax naan mënta ñàkk ci këram gi ku yor dayob sëriñ Abdou Karim Mbacke mi génn jamono. daan wax ne bëgg na sëriñ Abdou Karim mi doon sëriñ Abdou Karim moomale waaye itam am na ci moom yaakaar ju mat sëkk ni mu li dana ko am. bi mu amee ñetti at cële ko sëriñ Fallou Mbacke daal di dénk maam xaas yi Mbacke ca gin gi neew ngir mu wattu fa alxuraanul karim maam xaas comme nañu ko daan woowee. di doom ci sëriñ Afiya Mbacke moom Mamour Anta Sali waaye itam di rakk ci maam Cheikh Anta Mbacke borom gaawaan ak Daaru Salaam kóolute googu sëriñ Fallou Mbacke amoon ci maam xaas tax na maam xaas daan wax naan bëgg na sëriñ Abdul Karim mi wattu alxuraan ci anam ba mu gën a mucc ayib waaye doon bindkat bu mag mën a bind lool ba yéeme ba mel ni sëriñ Modou Moustapha Mbacke di xalifab sëriñ tuubaa bu njëkk. sëriñ Xaasim Mbàkke moom le bëgg sëriñ Abdou Karim Mbàkke bëgg gu jéggi dayoo ba tax sëriñ Abdou Karim itam delloo ko mbëggeel googule ba tax mu def ko ni way juróom góor wa sëriñ Fàllu Mbàkke jikkoy sëriñ Abdou Karim Mbàkke borom makaarimal axlaax dàkkental bi wuyu lool borom ngir jikko yu baax yi nga xam ne nii nekk na ci jëmm ju tedd ji manees na ci lim yaatu tabe yaru dëggu tegu ci yoonu siraatal mustaqim doon ab defarkat ku ubbeeku ci àdduna ak ay xam-xamam ku am considération ci doomu aadama yi waaye itam ku leen wekk lool wegal googule sax moom la jox rakkam yi ak magam yi mu bokkal sëriñ Fàllu Mbàkke waaye itam moom la jox mbooleem taalibe yi joxe ay xibaar yu neex bokk na ci ay jikko mu ñu ko ràññee waaye itam ku dëggu ku am kóolute waaye itam ku am fulla ak fayda ci ay waxam waaye itam ku teey dimbali ay taalibeem waaye itam dimbali ay jegeñaaleem ak képp ku mu gis doon loo xam ne nii lu sax ci biir xolam la dimbali googule sax tax na ay ndaw yu bëri yoo xamante ne nii jaaroon nañ ci weñeen yoon wu dëng moom Baye Karim mi teg na leen ci yoonu siraatal mustaqim jubbanti leen def ci ñoom ak dëggu waaye itam setug biir ak setug biti def ci ñoom pasteef ak liggéey ak jaamu yàlla dindi ci ñoom ak soxarte setal wecc seeni xol tax ñu koy tuddee borom makaarimal axlaax maanaam borom gën a kawe ku mën a muñ waaye itam waxkatub dëgg waaye itam kuy màggal ci ay taalibeem li nga xamante ne ni moom mooy ak bëggante ci seen biir waaye itam yërëmante waaye respectante waaye itam jàppalante Baye Abdou Karim borom makaarimal axlaax nekk jamono ji royukaay ci kër Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ci ndaw ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci réewum Sénégal daanaka ñu ci bëree ci ñoom ràññee nañu ko di dem ci moom di ko ziyaar waaye itam di ko dénk seen bopp ngir jikko yi ñu gis ci moom ci lu jëm ci makaarimal axlaax liggéey yaakonub sëriñ Tuuba Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasuul tax daanaka lu bari ci dundam gi def na ko ca ndakaaru ngir jubbanti fa ay ndaw sëriñ Abdul Karim Mbàkke borom makaarimal axlaax kon mel ne kon mébét bi way juróom wu wóor wa di sëriñ Fàllu Mbàkke amoon ci moom jamono ji mel na ni antu na suñu boroom nangu na góogile ñaan ñi ngi ñaan ñi ngi koy ñaanal fan wu gudd ànd ak wér yaram mu yàgg liggéeyal sëriñ Tuuba Cheikh Ahmad Xaadim la